Mawlana Cheikh radiyallahu anhu mi nga xam ne sunna bu rafet bii ñuy dekkal fii ci bërëbam bii moo ñu ci moo moo ñu ci yar wax na ne képp koo xam ne participé nga ci bésëb yonent bi sallallahu alayhi wa di am mi ngi mel ni yow bés bi yow yaa ko defar kon buñ taxawee Auchan taxaw ci ànd ceeg suñuy doomi réew di jàppalanteeg ñoom loolu mooy mission sëriñ si mooy seen yar mooy fexe taalibe yi seen addina baax seen àllaaxira baax parce que bañ leen di yar يالا دافا واخ القران وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين موم يالا داف ني دافا بيند دومي ادم مو داف كو نيت كو خا مني مونتا نياكا ليك مونتا نياكا دوند باي نينا لاي جوجو لين سي جانغي موي دومي ادم مونتا نياكا ليغي تا كيب كو خا مني ميغي نييو دي ديمبالي ساي اسكان فخه باني جابو سي دارا مونا غاردي سين دينيتي غاردي سين غور غاردي سين نجبوت كون دغ دغ كوكو ياو لاي ليغيل كون نيغ لين دي نوكيل دي نيان يالا يالا نين ياغ كوي تاخوي barke bi gëna tassaro ci sénégal océan dëcc sénégal yépp tax bu dajee région yëpp moo ne daj na ci doomi Sénégal yi yëpp ndax amul benn étranger boo xam ne mi ngi liggéey ci Auchan yi ci luñ xam ci luñ jot xam kon loolu ñu ngi koy rafetlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo bi yëpp di jiital si nuyoo bi suñu sëriñ Cheikh Maye Cissé. ñu ngi ñëw si ndigalu directeur général Auchan Laurent Leclerc moom ak 1500 employés Auchan yëpp si seen tur lañ ñëw ngi ñëw indi suñu participation si gàmmu gi comme ni ko defee woon daaw. defaat ko ren fas yéene ko def si at yu bëri incha allah noonu lañ ko defee tamit Tivaouane noonu lañ ko defee Touba noonu lañ ko defee Yoff Layeen ndax Auchan suñu slogan mooy ñun dañuy jege askan bi donc fu askan bi nekk rek da leen di fa fekki lépp lu yitteel askan bi daf ñu yitteel moo waral tey ñu ñëw indi 200 litres ndox bouteille 1,5 litre 2000 2000 litres indi 1500 kilos suukar. indi 5 tonnes litres 5 tonnes 5 tonnes ceeb mu tolloo ci deux sacs de 25 kg kilos ak diwlin à 5 litres 1200 1200 litres équivalent mille deux litres indi tay comme que ñun Auchan amul ginaaw ñu ngi naan yalla ñu def donc ñun Auchan def présentation bu ndaw ci Auchan euh, ñu ngi fi cinq ans si 5 ans yoyu Auchan embauché 1500 sénégalais

donc motax ñu ñëw mooy suñu téway tay ñoo bokk yeen yéen bi bokk yeen yéen bi ñoo fi en tant que jullit en tant que soppe en tant que talibé man ànd ak samay collègue euh, Nazir euh, Pape Samba euh, Babacar ñu ñoo nek ñoo fi nekkoon daal ak samay ay suñu ay soppe ak Oumou Salamata ñu ay talibé lañu ci kër gi lañu bokk ci ndaw gi lañu bokk ñu ñëwon tay def délégation bu ndaw ñoo suñu indi suñu ndimbal tamit bu ndaw xef nañ ko lool waye daal mo doon suñu suñu tank tay Euh, waaw di sàkku ñaan waaw di jottali suñ nuyoo mu jëm ci directeur général nuyoo boo xam ne ti mu ngi jugee ci xalifa bi ak ci pay bi yëpp di rafetlu seen taxawaay euh, bi ngeen taxawee ci réew mi yëpp di ñaan yàlla liggéey bi nga xam ne ci ngeen nekk nga xam ne ni nga ko waxee gis nañ ne mu ngi yaatu di yombalal ndaw yi liggéey loolu mbir la moo xam ne ni ñu ngi koy apprécier. te ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq ba nga xam ne li ngeen bëgg a def ci réew mi te muy jëriñ réew mi yëpp yàlla dimbale leen ci ci barke eh, yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moo tax ñiy gàmmu ci barke Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom moo oote ñi uy ko fii ci barke Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ñu ngi nuyu kilifa gi ñu ngi nuyu mboolem ñi ngeen xam ne ñi ngeen ngi nekk ak ñoom di ñaan yàlla ngeen dellu ci jàmm fekk jàmm at bu ñëw tiim ñun ak yéen yëpp yal nañu fekk ci mbir ma gën a baax ci zaahir ak ci baatin jaara sidda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu